leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di rafetlu toogaay yi ak teewaay yi di nuyu mbokku journaliste yi di nuyu mbooleem koo xamante ne yaa ngi teew ci conférence de presse bi wante may nuyu ki nga ne tey mën nañu wax ne moo fi teewal président Abdoulaye Wade muy suñu papa muy suñu frère le frère candidat à la ville de Dakar avec 17 000 voix le président Doudou Wade moom la ñuy frère di la jox wàccuwaayam maa ngi nuyu sama sëriñ sama xarit le frère Khalifa Ababacar Sall di nuyu sama maam. Déthié Fall Ndiogou Fall honorable député Déthié Fall di nuyu nag Burok Burok Burok Burok maa ngi nuyu Burok ndax tey teewaayam si Pikine wax fa dëgg yàlla mooy wone ne moom a coalition Yewwi Askan Wi dëgg ak euh, vérité ak démocratie rek moo leen ñor mooy nuyu toutes les femmes du département de Pikine du département de Dakar département de Keur Massar département de Guédiawaye ñëpp maa ngi leen di nuyu jël ko teg ko ci loxo honorable député Woré Sarr muy suñu yaay mu toog si ginnaaw di nuyu bu baax surtout Serigne Touba. conseiller à la ville de Pikine soxna Alimatu Mbacke bokk ci section PDS bu ginnaaw raay nord di sunu militante mu ngi nii toog di doomu Ablaye Wade man sama wax tey bëriwul maa ngi nuyu sama doom nag borom borom borom tugur yoo bi buy mari Sagna nga xamante ne xeexkat bu mag bi xam nga buy Assane Diouf merci docteur monsieur maire di nuyu le king du département de Pikine réélu quatre cinq fois mon frère ami nga xamante ni jëlul moyens yi denc ko ci élection yi man daf maa jàppale le maire Abdoulaye Diop daa jëfante foo waay wante boobu ma ñëw wax leen ñun suñu xeex amul xaar kuy xeexal keneen bu sa xeex jotee danga koy xeex Abdoulaye Timbo dafa war a xam ne setu Abdoulaye Wade ragalul ay dóor ñun ku ñu dóor dañuy fayu yéen tamit ku leen dóor na ngeen fayu loolu la ñu Abdoulaye Wade waxoon dañoo sàcc na parce que ñun ki ñu yar jàngal ñu politique wax ñu politique wax nañu ne bu leen attaché wu ci lu ngeen moomul victoire bii nag bu ñu amoon dut ne amuñu ko du ñu engagé wu parce que ñu duñu ay sàcc sàcc moom ci ñoom rek lañ ko xamee parce que kuy jëluy jooy yaa xam ki dee ça fait quatre jours qu'on me colle des RG ça fait quatre ñu yaakaar ne fii dañ koy daal wala fii fi kenn daal dara suñu victoire lañ jël ñoo ko moom amul dara ala accu amul bàyyi dama bëgg ñu xam ne lu mu leen jaral pour ñu sàcc victoire bi dinañu ko jaral pour le rassemblement la réunification de l'opposition dans son que la victoire et la victoire triomphe te moo gañewul élection yi te moo la ko gën xam li tax ñu tiit ñetti fan lan moo tax boobu ba léegi tiituñu lan moo tax boobu ba léegi bougé wuñu tey ay char de combat lu ne indi nañ ko Pikine xam nañ ne li ñuy def bu jàll ça ne passera pas parce que xam nañ ne tey élection yi ñu war a sàcc opposition bi yëpp toog nii loolu yombul woon a am tey merci Bourama merci Khalifa merci Déthié d'avoir répondu à l'appel d'une pauvre collègue, d'une pauvre maman. Merci beaucoup. Toute l'opposition réunie, ñu gagné le combat après ñu wax di gërëm waa Yewwi Askan Wi du département de Pikine ñoom ñëpp jàppale nañu ci combat bi ba nga xamante ne le docteur Cheikh c'est le maire de la ville de Pikine maire par force maire par force comme disait Ahmed Aïdara parce que dañoo gagné di gërëm bu baax sunu jabar madame Anna Coulibaly moom aussi sonn na si liggéey bi elle n'est pas seulement une femme de mère mais elle est militante di gërëm bu baax Zelaine Ndiaga Niang gërëm bu baax leen di sant gërëm sunu doom Marie Sow Ndiaye Elle été à l'origine de tout di gërëm le député le l'honorable Abo Thiam le maire ah Pamara Diédhiou et derrière duñ la fàtte Gaynde Ablaye Wade di gërëm Aliou Sy on a été tous au four donc yàlla yàlla jàppale ñu le euh, le meilleur gagne waaye ñun ñooy le meilleur gagne nañ ba merci beaucoup